jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi euh, FM 97.5 mbokk yi seen émission pencum réew mi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen euh, samdi bu jot bu 15 jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck. Euh, Mamadou Diaw Diallo nekk ci wàllu machine bi mbokki yi tey ñu invité Amadou Bassir Ndiaye. moom mooy njiitul mouvement politique bokk defar Sénégal waaye tamit mooy président coalition juste. Euh, justice euh, solidarité et entrepreneuriat moom la ñu invité tey euh, ñoo ngi leen nuyu. ñoo ngi leen di fay asalaamaaleykum euh, mbokk réew mi ñuy déglu émission bi. leen ñu ngi lay nuyu Abdou Khadre. Amadou Bassir yow yaa jiite coalition juste yow la ñu invité tey fa seen i waxtaan ak yow ci actualité bi nga xam ne moo am ci Sénégal fi ñu koy dooree rek. Euh, bokk na ci dialogue politique bi nga xam ne njiit réew mi di président Macky Sall woote na ko am na ñu bari ñoo xamante ni nee nañu dinañu dem am na ñoo xam ne nee nañu du ñu dem ci dialogue politique bi ndax jàpp nañ ne du lu sincère jàpp nañ sax datub euh, dialogue politique boobu euh, yow dialogue politique bi njiit mi woote d'abord lan moo ci sa gis-gis ak lan moo ci yéen seen position. waaw ñun Abdoul Khadre coalition justice solidarité entrepreneuriat fépp fu ñu wootee pour ñu discuter dañ fay dem taxaw surtout nag su fekkee ne ki jiite réew mi ki Sénégal yi fal ne mooy jiite réew mi moo woote moo tax ñun bind nañ ne dinañ dem suñu woowee dinañ ñëw toog d'accord nañ ci discussion parce que dëkk bi ñaari at ñetti at yi passé yëpp jaxasoo na jaxasoo boo xam ne tant ñu ngi mun di discuter rek dinañ mën a euh, trouver solution daal pour am jàmm jàmm ak salaam donc ñun dinañ dem te nee nañ nit ñi ñi ñu woo ñëpp nañ dem déglu ko du ça veut pas dire que ne dañuy d'accord li mu wax mais nañ dem déglu ko parce que mooy jiitu réew mi mm. te jàmm euh, su amee ñun ñëpp si am euh, bénéficier mais ñi nga xam ne demuñu tey ci opposition bi ñoom nee nañu dañoo jàpp ne du dialogue bu sincère te gisuñu tamit ay termes de référence yoo xam ne yu clair la yuy tax ñoom ñu mën a dem ci dialogue bi waaw si j'ai bien compris euh, njiitu réew mi bi muy wax dafa ne terme de référence yi nit ñi suñ ñëwee mun nañu sax wax liñ bëgg ñu discuter ci ba d'accord ci liñ ah, war a discussion waaw li ñuy dialoguer discussion dégg naa ñuy wax ne affaire amnistie dinañ ko wax dañ wax si affaire processus électoral bi dinañ wax si affaire parrainage bi bon yooyu moom aussi junjoon na ko mais nee na nit ñi mën nañ wax parce que dañ ko doon laaj terme de référence yi mm-hmm. si je ne me trompe wax na ñu discuter ba trouver consensus si terme de référence yi. donc euh, amul problème daal. waaw euh, Bassirou Ndiaye mais ñi nga xam ne nag jàpp nañu ne ay dialogue politique euh, mas na fee jaar waaye après gisuñu ñu jëfee ko maanaam dañ ko teg na daal mel ne solo si bëriwul yow ban gis-gis nga ci am. waaw loolu seen droit la xam nga nit ki aussi suñ la woowee dialogue soo buggul dem kenn mënu laa demloo. magum jëmm démocratie lañ ne comme li ñu wax ku nekk am nga liberté de choix mun nga choisir dem déglu mun nga choisir ne duma dem parce que lii la lii la lii la lii la loo munti wax tamit mënuñu la force nga dem mais yaakaar nañ ne ne ku Sénégal ñor ku jàmm ñor ku bëgg dëgg-dëgg avancement Sénégal di nga mën a dem toog déglu su subaa kenn wax ne ne dégluwuloo woon. kon nga bëgg a wax ñi demul si dialogue bi Sénégal intéressé wu leen Sénégal ñoru leen. waaw loolu laa yaakaar man je le dis personnellement loolu laa yaakaar parce que ku gestu gis say doom toog sa jabar toog sa yaay say maam say mbokk gis dëkk bi ni mu tàngee ni mu mettee ni ñi ni ñu sonnee suñ la woowee dialogue te jiitu réew mi woo la même soo d' accordul ak moom demal nga déglu ko su waxee loo xam ne d' accorduloo ko. nga génn wax ne man d'accord ma waaye demoon naa déglu ko parce que nag yàlla moom moo ko fa mm. te tànk ba mille vingt quatre comme il di 2 avril 2024 mooy jiitu réew mi su si yàlla àndee. Euh, kon daal yow euh, dialogue bi jàpp nañ ko aussi euh, trente mai bi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen waa coalition juste daal pare ngeen pour dem waxtaan waxtaanee léegi tey par exemple tey Bassirou Ndiaye. yow sànq sa biir yi wax nee nga président Macky Sall nee na euh, maanaam terme de référence yi bëggul terme de référence yoo xam ne moom mooy jekki-jekki tànnal ko boppam mais bu ñëwee ba toog kenn ku nekk mën naa wax yow lan nga bëgg ñu euh, ñu waxtaane ko naturellement benn bokk yaakaar dana ñu fa am euh, ay ay membre te yow terme de référence yooyu yow boo doon proposé tey lan ngay proposé ak lan ngay xaar pour dialogue si waaw man li may xaar mooy surtout ñu wax pour ñu def balaateer problème yi am Sénégal ñu toog wax ci politiquement par rapport ak processus électoral bi am problème ñu xool aussi par rapport ak parrainage bi ñu xool aussi par rapport ak su dee amnistie dañ bëgg a amnistie ay nit nan lañ koy defee parce que dama lay fàttali ne amnistie soo koy amnistie ay fee ngay amnistie doo jël ñaari nit rek amnistie leen donc yooyu yëpp dañ koy waxtaan ba jubóo trouver consensus ça veut pas dire que ne ñëpp dinañ d'accord mais li ci ëpp dinañ d'accord donc ñun problème yooyu suñ ci waxee bàyyi nit ñi le maximum ñu bokk ci élection yi mais xoolaat parrainage naa nan lañ koy dindee lan lañ fay teg wala suñ ko dindiwu tamit lan lañ koy nan lañ koy yombale caution bi nan lañ koy yombale processus électoral bi nan la ñuy def ba ñëpp bés bu ñu defee élection yi le 25 février 2024 ki gagné ñu ñëpp d' ci félicité ko ñu continuer Sénégal am jàmm loolu daal moom mooy sama kii daal. lu jëm ci wàllum troisième candidature bi nag bokkul ci ay ci euh, terme de référence yi nga xam ne bëgg nga ñu wax ci lu leer. xam nga su fekkee ne ne soo demee <laughs> wax troisième candidature kenn du dialogué donc ça sert à rien ñu dem dialogué parce que ñii kii nee na moom man waxaguma duma ci wax su jotee dinaa ci wax parce que candidature man lay soxal soxalul keneen maa koy wax ñële ne buggul bokk mu ne moom du ci wax sax de tout façon donc nga wax ci indi problème bu dul jeex du xaaj la te duñu avancé alors que ñun affaire candidature du loolu mooy suñu soxal su ma fàttali ko bi fi ñëwee la 11 février di waxtaan ak yow ci émission bi nga ma expliqué woon bi nga ma invité woon waxoon naa la ne ñun candidature mois d'août lay doon amuñu soxaluñu candidature daal wax ko daal loolu mooy jarul dialogue su dee dañu nar dem wax affaire candidature ñi ne non non day def ñi ne du def kii ne man du ma wax jotagul su jotee naa wax et tout ça donc du amul dialogue du am. donc mais mais li nga wax nii tamit ci même processus électoral bi. su ngeen fa demee tamit ay sujet la yoo xam ne dañ koy débattre rek ndax troisième candidature nekkul sujet boo xam ne war nañ ko teg si table bi waxtaane ko. le troisième candidature suñ d' accord ne conseil constitutionnel mooy décidé am nañu constitution boo xam ne 2016 modifié nañ ko wax nañ ne nul ne peut faire de plus de deux mandats consécutifs ah le mandat est de cinq ans nul ne peut faire plus deux mandats consécutifs su jouru candidature jotee mois d' ni nit ñi commencé wut seen su dee parrainage bi dañ ko maintenir wut seen i parrain et tout ça dem déposer seen candidature lex euh, conseil constitutionnel conseil constitutionnel war a nekk candidat d' accord su fekkee ne ne am na ku dugal te warul woon nekk candidat ñuy d' accord su boobaa aussi ñu campagne wax na ne d' accord ci c' aussi simple que ça bàyyi Sénégalais yi décider de toute façon Sénégalais yi léegi nii am nañu xam-xam seen xel màcc na ci affaire élection ba nga xam ne duñ choisir ku ñu bëggul nga forcer nga bañ a force ñu la choisir suñ la bëggul donc je pense que ne amul problème daal waruñoo toog du programme politique man troisième candidature bu man du programme politique comme ni ma ko fi waxee woon ba léegi ñu ngi ci loolu programme politique bi mooy ñu seet Sénégalais yi nan lañ leen di jàppalee ba ñu mun a génn ci ndóol bi ñu seet nan la ñuy def jafe-jafe yi wàññeeku ñu seet nan la ñuy liggéeyee créer ay emploi ga xëyu ndaw yi gis nañ ne soixante cinq mille lañ waxoon def nañ soixante six mille am nañ résultat bu baax mais nan lañ koy. amplifier mais sur le terrain. parce que am 66000 rek doyul mille emplois rek doyul si euh, presque ay euh, centaine de milliers d'enfants xale yu amul liggéey xale ñu emploi ay chômeurs donc dañ koy war a amplifier comme jéem nañ gis nañ def nañ ay jéego nañ ko gën a amplifier nañ seet nan lañ koy amplifier mënoon nañ toog waxtaan sur loolu. nan la ñuy defee ba Sénégal yi mën a liggéey nan la ñuy mën a amplifier xëyu ndaw bi comme commencé nañ gis nañ ne ñu ngi am ay résultats ba ñu gis ko si terrain bi. mais yow yow yaa gis résultat mais am na ñu bari ci askan bi ñu résultat. parce que 66000 la yem su dee am nañu ay centaines de milliers d' emplois. Ah, euh, de est ce que est ce yow en tant que koo xam ne sa xel màcc na ci wàllum entrepreneuriat mm-hmm. est ce que rôle état la woon mu taxaw ne damay créer ay emplois. non état du créer emploi ñun def nañu sax euh, communiqué ba expliqué que secteur privé bi mooy créer emploi mooy facilité. am na convention état employeur pour faciliter création d'emploi mais war nañu am na DER FJ mais quoique ne DER FJ sax liggéey bi xaw na doy waar parce que suñ gisee ñu ne cent dix milliards lañ def deux cent trente mille entrepreneurs lañ jàppale ça fait quatre cent mille par entrepreneur en gros defee moyenne loolu doyul pour entreprise entreprise danga ko war a jàppale mu dem créer am na guichet unique APIX soo demee nga créer ñu jàppale la jox la xaalis jox la ay jumtuwaay di la jàppale di la suuxat di la suuxat pendant des années pour que mun a jóg donc Sénégal na jox dispositif ak moyens yi entreprise privée yi secteur privé ñu créer ay emploi ñu jàppale leen ci seen i employé jàppale leen ci seen koom-koom ñu mun a jóg d'accord waaw jërëjëf euh, Bassirou euh, Ndiaye euh, wax nga ci dialogue politique bi nee nga yow pare nga pour dem mais dafa am benn kuréel boo xam ne moo tudd F24 Euh, société civile bi ak yenn ci waay politique yi ndax yow bokk nga ci kuréel googu di F24. non non non man bokkuma ci mooy li ma la wax rek man du ma du ma wax affaire candidature du ma wax affaire candidature parce que. kii bokkoo ci opposition bi. opposition soft lañ bokk wax naa waxoon opposition de solution ñun liy indi jaaxi jaaxa liy sonal Sénégal yi duñ ci dugg parce que ñii di dem do foofu di def F24 seen choix la dañoo dem choisir ne dañuy discuter bul wax troisième kan wax troisième kan mais foofu la ñuy nekk place de l'Obélisque ba kenn jóge si suuf dem. defi campagne su élection yi jotee mu gagné ñu ne fan la jaar fan la jaarul c'est-à-dire troisième candidature du programme politique moo tax ñun musuñu see d'accord duñ si musa d'accord xam nga 2012 maa ngi lay doon nett la dernière fois ñun dañu toog rek place de l'Obélisque ak euh, di wax rek pas de pas de pas pour Abdoulaye Wade par Macky Sall bi conseil constitutionnel ne day nekk candidat wàcc ndànk dem ñu continuer di wax rek dem dem seeti nit ñi xool jaamu askan yi ñu jox ko réew mi donc ñun foog nañ ne ñu liggéey xool lii waa réew mi soxla lañ moom moo ñu gën a soxal daal ko toog di bokk F24 F24 dañu nar a toog foofu rek di wax di wax di wax wax mu am kuy rocceeku dem si biti wuti Idrissa Seck sax mu ngi waxtaan yi di wax ne moom dafay dem léegi ci àll bi wuti parce que moom mooy chef de l'opposition léegi ku ci ku yooyu kon yow da gis ne mais F24 seen taxawaay est-ce que jàpp nga ne mën nañoo am solution ndax ñoom seen solution mooy président Macky Sall teg mbirum troisième candidature ci suuf détenu politique yi ñu bàyyi leen ñi ñuy faagaagal ci ñu bañ a bokk ci euh, élection ñu bàyyi loolu est-ce que jàpp nga ne combat boobu ñoom mën nañu si am ndam. ah loolu moom yàlla rek xam mais xam naa ne daal benn point moom leer na nañ mooy que président Macky Sall nee na. affaire candidature waxu ci bu ci kenn wax bés bu jotee moom dina ci wax parce que candidature moom la soxal moom Macky Sall moo war a nekk candidat. Mm-hmm. donc ñoom suñ si nekkee di wax suba ba ngoon xoolal depuis deux ans ñu ngi ciy wax Abdou Khadre euh, mu ngi continuer def li muy def nii di xiiroo di ŋaayoo détenu politique yi ñiy taal lakk ñooñu est-ce que détenu politique lañ ñu joxe seen opinion peut-être mun nañ xool wax. mais ñi nga xam ne ñu ngi taal ñu ngi wax ne ñii ñu ngi def ay cocktail molotov ñu ngi yàq koom-koomu nit ñi ñu ngi yàq appareil de production yi est ce que ñooñu ko donc F24 ah seen choix la su leen neexee ñu dem place de l'Obélisque toog chaque chaque chaque quinze jours ñu def seen manifestation wax su dee dañ leen koy autoriser ñu autoriser leen ko ñu génn dem ak jàmm la dernière fois def leen koog jàmm ak salaam amul problème dañ leen bàyyi ñuy manifester mais ñi nga xam ne Sénégal moo leen ñoroon ñi nga xam ne ne dañ bëgg Sénégal liggéey dañ bëgg Sénégal yi am liggéey koom-koom bi yokk nañu dem seeti nit ñi ñu xam seen i bëgg-bëgg ñu def ko seen i projet politique su jongante bi jotee ñu jongante. waaw mais lu jëm ci arrestation yu bëri yi ñoom dañoo gis ne dafa am parti politique yoo xam ne ñoom la ñu singali rawatina waa Pastef ñi ci jàpp dugal ci kaso yi euh, dafa bëri euh, yow ban gis-gis nga si am. Euh, réew boo xam ne état de droit la. gëm naa ne procureur de la république policiers yi juge yi du ñu jël nit tëj ko rek si yaama neex que dafa am fu ñu koy teg fu firnde fu leer nañ léegi ñoom suñu wanee ne ne suñ ko teg leerul su boobaa dinañ def say ni recours mais fi mu nekk nii daal ñi ñu jàpp ñëpp je crois que ne ñoom am na fu ñu ko teg maintenant nag mun nañ wax détenu politique ak du détenu politique ku nekk yéen ni ñu koy gisee na nga fa nga fa nga féete ngay waxee mais waxuñu majorité waxuñu opposition état de droit la ñuy wax dañu am ñoo xam ne ñoo fi nekk pour aar ñu jàppale ñu ñu mun a liggéey liggéey calme am sécurité di dem di ñëw su amee ñu xam ne dañ koy salfaañe ñoom ñooy war a liggéey mooy force de défense et de sécurité yi juge yi ñooy juge xool ndax réellement li leen jàppee loolu la nañ toog juge leen démb dégg naa euh, Ziguinchor am na ñu ñu bàyyi si ñu jàppoon donc peut-être magistrat ba jugé gis na leen ne peut-être jarul mu leen di téye donc nañu nañu gëm suñuy institution parce que nag suñ fi nekkul woon ñun dëkk bi dina làmbaay dina ñaaw donc force de défense de sécurité ñu ngi fi nañ leen tàccu nañ leen félicité nañ leen gën a sargal juge yi magistrature ngi fi nañ leen jàppale mais buñ gé foog na ne ñun leen gën wala ñun ñoo gën a am xam-xam wala ñun ñoo leen gën a muus ñoom li ñuy def yëpp dañ koy teg si ay kayit nañu xool suñ ko jalgatee rek euh, ñu dal seen kaw. yaa ngi wax wàllum justice. Euh, leader bu mel ne Ousmane Sonko moom. Euh, moom moom li mu wootee mooy maanaam bañ a gëm daal justice bi bu ko wooloo mu mu bañ a wuy ji taxawaayu sonk boobu yow ban gis-gis nga ci am. ah mooy que ne bi biñ ko élection législative yeeg élection municipale yi locale yi bi justice déclaré ne ne ñoom am nañu ay kii yu takku. ngi gisee ne ne yëngal nañu majorité bi waroon na wax ne ne justice bi d' accord ma ci mais donc ñoom résultat yi ñu jox d' accord ñu ci bañ koo jël moom munoon na bañ a nekk maire Ziguinchor comme moom gëmul justice bi su fekkee ne loolu la wax ne gëmul nii nii nii mais mu koo def loolu rek mooy sama tontu c' yow daal mënuloo d' accord fii su subaa nga nga nga la defalee lu la neex nga neex na suñ la defee loo xam ne ne dëppoowul ak li nit ñi di def nga ne baaxul loolu man loolu aw ma lan la ko mën a yàqal ci wàllum politique wala amul lu mu ko mën a yàqal ah en tout cas su dee nekk candidat élection présidentielle il faudrait que magistrature euh, justice euh, décidé ne déclaré ne moom moo gagné wala gagnéwul donc euh, il faut faudrait savoir te il faut candidature am aussi su fekkee daf koy def il mu dem déposer ji ko te ñooñu ñëpp c'est la justice donc man comprendre ma logique am daal comprendre ba ko mun nga gis ne am na yoo xam ne ne neexu la nga xeex liggéey ba dugg ci biir su la ko yàlla joxee nga changé ko mais toog na duma fa dem ba pare ñun suñ la waxee lu la neex nga ne d'accord suñ la waxee lu la neex nga ne non non non baaxul te ñeneen ñi di def même di def euh, ñu leen dox leen neex ñu koy muñ loolu comprendre ma position Ousmane Sonko je ne le comprends pas il a le droit nag lu ko neex def parce que on est en démocratie sénégalais la ñëpp kenn ëppale wu ko si réew mais man loolu comprendre je ne peux pas comprendre. Mmh. léegi euh, lu jëm ci manifestation yi dañu gis ne saa sur manifestation manifestation amee rek euh, jàppante day am ñu bari di si euh, di si ñàkk seen bakkan ndax jàpp nga ne manifestation moom bu amee rek bakkan dafa war a rot. déedéet yàlla na ci yàlla musal bakkan bu rot rek ëpp na non yàlla na ci yàlla musal loolu kay jàppuma ko non noonu non jàppuma loolu manifestation normalement dafa war a fas pacifique. comme ni ko waa F24 defee la dernière fois def nañ manifestation bu pacifique ñu bëgg ko ñu am nañu mbooloo bu takku ñu ñëw nañ manifester nañu def nañ wax nañ li ñuy wax yëpp ñëpp ñibbi sans problème donc manifestation noonu la war waaw mais léegi dañu gis ne ay manifestation bu amee rawatina ci mbiru Ousmane Sonko yi dafay am ñu si ñàkk seen bakkan barki démb rek am na ko ci faatu euh, Kër Mbay Fall ba li nga xam ne mooy certificat de mort bi wala na ne euh, bal moo ko faat. waaw dégg naa dégg naa ñuy wax loolu léegi dañuy bàyyi justice. na famille porté plainte su dee porté wuñ plainte état bi na jël responsabilité am euh, def enquête par rapport à ça ñu xam exactement lu tax kooku parce que kooku âge bi mu amoon sax euh, warul woon génn warul woon manifester daal loolu parce que soxalu ko du électeur du amul âge donc dañ koy ñaawlu di jaalee encore ay waajuram di ñaawlu loolu parce que war nay doon ay manifestation yu pacifique ñu aar ñëpp ni ñu mën a loolu mooy rôle force de défense et de sécurité aussi mais ñi faatu tey société civile bi nee nañu dañu bëgg même F24 ñu ubbi si benn enquête boo xamante ni tey bu leer lay doon ñoom sax dàq ñu yóbbu ko ci euh, bitim réew. enquête euh, dañ ko war a ibbi c'est normal. si ñu faatu ñëpp. si ñu ñëpp. loolu état de droit loolu mooy rôle su amee sa citoyen boo xam ne ne ne yow euh, da gaañu na si gaañu boo xam ne ne leeru ñu def enquête. maintenant nag suñu defee enquête ba pare c'est contradictoire am na ñoo xam ne dañ d'accord am na ñoo dax am na des voies de recours et de moyens ñoom seen i moyens ñoom ñoo koy seetal seen i bopp mais nañ bàyyi état euh, institution yi def seen i enquête ah. ñu xool waaw waaw tension politique bi euh, tax na euh, wala sax yow tension politique bi lan nga jàpp exactement moo waral tension politique bi am ci Sénégal bipolarisation bi am entre Ousmane Sonko Pastef ak APR ñoo ñoo ñoo créé tension politique ñoo créé tension politique bi kii suy dem xeex day wax ne ne maa ngi dem xeex ñëw leen jàppale leen ma kii ne non non déedéet doo fi xeexee waruloo def nii def nii ñuy xëccoo di xëccoo ba nga xam ne ne ñun depuis deux mille dix neuf ñaar rek la ñuy dégg. Pastef Pastef APR. Pastef APR président Sonko président Macky. maintenant problème bi rek fi muy amee tension yi ko créé mooy que doo xam ndax président Macky président chef de l'état la ñuy wax wala président Macky président coalition président APR la ñuy wax problème yëpp foofu la alors que président de la république dañ ko war a sargal dañ ko war a respecté mais waa Pastef ak ñoom Sonko dinañu ay wax yenn kàddu yoo xam ne doo xam ne kan lañ koy wax ndax président de la république lañ koy wax wala euh, président. mais est que président Macky Sall bu jëfe woon la mu jëfe woon waxoon entre bu nekkee président du nekk chef de parti est-ce que loolu bu bu ñu demoon ba régler problème boobu li ngay wax nii du jeex. ah ça serait très bien ñun coalition juste euh, si suñu axe programmatique ñu ngi koy wax nee nañ deux mille vingt quatre ñiy déposer ñëpp seen candidature di def déclaration sur l'honneur euh, au mois de décembre deux mille vingt trois que ne bokk ci élection yi suñ yoree seen quitus fiscal la pare déclaration sur l'honneur bi ñuy def nañ ci bind ne ñun ñoom ñu nekk chef de parti dootuñu nekk chef de la majorité présidentielle dootuñu ko def ay wax rek nañ ko bind nañ ko bind dañuy proposer si dialogue politique dinañ proposer loolu aussi ñu ko ko ci ñu bind ne rek nit ki gor sa bind ba administration c'est une administration écrite soo bindee sur l'honneur que ne dootoo nekk chef de parti dootoo nekk chef de la coalition tu seras qu'un chef d'état su boobaa peut-être affaire dinañ xaaw gën a leer te nit ñaa ngi koy def États-Unis ñu ngi koy def France ñu ngi koy def yeneen dëkk yëpp a koy def suñu ñëwee élection jot ñu ñëw seeni parti su jeexee pare nañ ci parti ba keneen jiite ko ça serait très bien loolu aussi joué na ci quand même. d'accord yow léegi sànq ne nga tension politique bi. Mhm. APR Pastef la Sonko mais. Euh, tension bu amee jàppante am xañ na dina am ku tooñ kan nga jàpp ne moo tooñ. kan moo tooñ ci tension politique bi. waaw mais nan lañ ko mun a waxee ku tooñ parce que ñoom dañuy politique fi mu nekk nii. waaw non mais dañuy politique. dañuy politique ba tension am. xam nga yow seen parti seen coalition juste amu leen kenn ak problème. Euh, bokk defar Sénégal mouvement boo amu leen kenn ak problème. nee nga problème bi jafe-jafe yi. c'est APR Pastef. mais kay jàppante bu amee diggante ñaari kuréel xaj na am na koo xam ne def na lu mu a def. xam nga Abdou Khadre am na wax ak te nekkin yoo xam ne nit waruloo ko wax kilifa. am na yëf yoo xam ne ne waruloo ko déplacer problème ñaari problème ñoo indi tension bi di gën di jóg Adji Sarr Sonko Mame Mbaye Niang Sonko ñu jël ko déplacer ko saa yu Sonko di dem tribunal wala di dem de wax woote wax wax wax nit ñi génn wax na kii nit ñi gis ne ah nguur gi parce que def nañ confusion entre nguur gi ak APR. que ne ñun dañuy jéem a indil ndëgg saraxal Sonko et tout sax loolu mooy indi tension yi mais su fekkoon dañ jël ne c'est des problème individuels. Sonko la ak Adji Sarr ñoom ñëpp ay citoyen lañ Sonko la ak Mame Mbaye Niang ñoom ñëpp ay citoyen lañ Sonko suy dem ne ah man de maa ngi dem bu kenn ñëw bu kenn wala ku bëgg ñëw nag ma fekk foofu bul ma ja bul jaar ci yoon bi bul leen ma dem ak jàmm yegg ak jàmm su boobaa tension du am nga aussi ngay wax ne tant que président bi mu ngi nekk président de la république même su nekkee chef de parti nga jox ko gëddëm mais daf may rey maa ma rey ko maa ngi def def naa sama testament ak yooyu yëpp day indi tension surtout que dëkk bi métti na xam ne ne nit ñi même suñu àndul ak Sonko mere nañu ñu le parce que sonn nañ lekk amuñu ko ñu bëri am nañ problème mu lekk ñu bëri am nañ problème mu emploi recherche bi amul affaire yi leerul gouvernance bi ñu ngi si problème yi yooyu nag aussi mu ngi siy waaw mais bu ñu nee askan bi tey wala Sonko. dafa gis ne même bu dee personne euh, problème personnel la digganteem ak Adji Sarr ou mbay Mbaye Niang bu gisee ne état bi daf cee dugal loxoom euh, jàpp ne état bi da ko politiser est-ce que tamit euh, taxawaay boobu gisoo ko. nan la ko état bi mun a politiser état bi du politique. état bi c'est les institutions état bi du APR du coalition juste du Pastef du kii état bi mënu ko politiser justice ñoo jouer seen rôle. kon yow jàppoo ne euh, président bi day instrument day instrumentaliser justice bi. Ah non mënu ko justice bi ils sont indépendants c'est c'est c'est deux pouvoirs différents. pourtant yow indépendance bii ngay wax am na magistrat yoo xam ne ñoo waxuñu lool. ah mais na yi su leen neexee ñu wax loolu. magistrat yi su leen neexee ñu wax mais man de li ma gis mooy pouvoir exécutif pouvoir judiciaire am nañ euh, différence am nañ indépendance maintenant pouvoir législatif mun nañ wax ne ne ne mun na sax dépendre si président exécutif parce que même majorité bi la kooku on peut dire mais euh, judiciaire gis ma euh, problème bi bokk ñaari nit ñetti nit wax c'est l'exception ki confirme la règle kon yow si mmh. tënk ah. da nga jàpp ne mmh. kon yow ni ma la déggee nga wax mooy tension politique bi Ousmane Sonko moo ko fi indi ah oui ça moom c' est clair et net joué na ci bu baax a baax a baax parce que su dee problème mu Adji Sarr ak problème mu moom Mame Mbaye Niang moom moo dem moom moo wax suñu waxee yàlla rek tax ñu wax suñu xool ne suñu bàmmeel ak suñu kanam moom moo dem moom moo wax. maintenant nag su ko jëlee déplacé ko kenn mënu ci dara maintenant su ko nit ñi dégloo aussi kenn mënu ci dara mais moom moo dem moom moo wax te nag saa yu ñu ko woowee moom mooy nekk génn wax lu ko neex nit ñi topp. nag yàlla nag moo def loolu mooy leader de l'opposition du chef de l'opposition moom mooy leader de l'opposition su waxee xale yi topp ko te ànd ak moom donc tension moom ma ko créé waaw waaw jërëjëf euh, Bassirou Ndiaye kon mbokk auditeurs yi euh, suñu mbokk euh, internautes yi yéen yéen a ko déggandoo peut-être yéen di ngeen di ngeen yéen a di ngeen apprécier ci li mu wax ndax moom dafa jàpp ne tension politique bi Ousmane Sonko la Euh, sànq euh, ba tey ci tension politique bi gis nañ tey ñoom Alioune dem seeti euh, Serigne Mountakha ngir mu dugal ci loxoom ngir tension politique bi mën a wàññeeku wax na nee na dafa wax sëriñ bi ngir mu wax Ousmane Sonko mu daal di teggi tànkam wax na ak président Macky Sall. wax nag sëriñ bi pour président Macky Sall moom tamit libéré détenu politique yi dox boobu société civile bi di dox di seeti kilifa diine yi ngir apaiser tension politique bi ban gis-gis nga ci am. ah dama koy rafetlu dama koy rafetlu surtout sëñ bu tedd bi kilifa gi wax na li mu waxee nit ñu waxee ne noonu la waxee loolu rek la ñu xaar ci moom te deful lu dul loolu loolu la mus a def dégg naa Ousmane Sonko démb bi muy def interview bi nee nañ wax na ne moom li ko sëriñ si wax du ko wax donc euh, je pense que ne mu ngi si bonne disposition def dialogue aussi wàccee tension bi parce que nee nañ ko Alioune Tine nee nañ wax mu teggi tànkam donc mooy tension bi ñu doon wax rek moom mooy bës rek su bësee accélérateur bi rek mu dem donc euh, dina peut-être teggi tànkam ñu ngi koy rafetlu léegi président moom ban ban taxawaay la a léegi léegi yow par rapport ak li nga wax dañu ne ñu ne na libérer détenus politiques yi monsieur pense que ne suñ demee logique comme li ma waxoon sànq pouvoir judiciaire bi ak pouvoir exécutif bi amuñu benn rapport donc su justice euh, décidé li muy décidé su boobaa président bi mun na gracier bàyyi ñu bàyyi. léegi président bi waxoon ay dossier maa si teg sama coono ci xanaa fekku la fi. dégg naa bi mu ko waxee waaw dossier moo moo si teg dégg naa bi mu ko waxee waru ko woon wax wax na ko léegi ñun ñoo ko fal su beneen yoonee ñu ñu rectifier loolu moo tax ñun ñu coalition juste ñu proposé ne dañuy def parquet économique et financier waxoon naa la ko le 11 février ce qui fekk ne kenn dootul am possibilité di teg conc ak di donc euh, wax na ko mais suñ toogee di wax ne moo ko waxoon waxoon na ko waxoon du tax ñu changé problème bi léegi problème bi mooy ñu wut loo ne ne moom dootul mun a teggi conc ak teg teg loolu la rek ñun añ am logique bu ñuy demee mooy que ne ne suñ naree nekk di ñaxtu rek duñ dem duñ avancé te depuis 1960 mais depuis sax colonisation ñu ngi ñaxtu demuñu fenn donc nañuy wut ay solution jéem a mm-hmm. waaw mais gis nañ euh, njiitul Pastef dem toog Ziguinchor ci foofu mu fekk baax euh, ñenn si waa APR ñoom dañu gis ne dafa daw dem foofu moom nag nee na barricade bi ñu ko doon def di ko tëj ci kër góor gi ak di agressé moom ak njabootam loolu la bëgg mu dakk moo tax mu dem toog fële te nee na bu ñu ko joxee garantie aussi ci wàllum sécurité am dina wujji yoon waaw waaw te may may rafet lu mu demande ñu jox ko garantie bu dem wuyu yoon parce que comme moom ak beneen citoyen la mu dem euh, régler problème bi parce que bëgg na te am na droit demandé nekk président de la République liggéeyal Sénégal su demandé ay garantie moom xam na yoon bi muy jaar pour am ay garantie foog naa def ko wax pour que nit ñi dégg ne moom bëgg na def loolu mais nag na ko dëggal dem ba fond ba mooy que xam ne ne su wootee ne dama bëgg garantie pour dem ba procès ba ba tribunal su taxawee wax woote dinañ ko yóbbu ba mu yegg wala nit ñi dinañ ko bàyyi mu dem ba yegg mais am na noo xam ne soo ko woowee nit ñi ñu wóor la ne ne sooy dox sax doo mun a def benn pas doo dem te doo yegg donc loolu aussi il faudrait que mu wax nag loo xam ne ne ne day méngoo ak li mu bëgg daal su fekkee dafa bëgg a dem xam na ni muy jaar pour yegg parce que dem na fu bëri kenn topp ko mhm. waaw d'accord c'est son droit nag dem Ziguinchor moom fu ko neex mu dem Sénégal amul fenn fu ñu ko war a mun a tere mu dem fu ko neex mu dem toog loolu moom dañ koy nangul mais del su dee dafa bëgg a dem si projet bi xam na ni muy jaar ba dem te kenn du ko sonal te kenn du ko te sécurité am dina ko assuré loolu moom Sénégalais yëpp sax am nañ droit suñu amee problème sécurité woo ñu ñu war a woo ñu jàppale leen pour que seen sécurité assuré ndaxte Abdoul Khadre saa yu manifestation amee si suñuy calcul suñuy expert quarante milliards dañ ko perte journée boobu Sénégal parce que kenn du liggéey kenn du def appareil yëpp day taxaw quarante milliards xaalis bu bëri la bu ko soo ko defee ñetti yoon ñeenti yoon juróomi yoon si weer bi problème bu dul jeex du xaaj le 8 le 16 le 23 mais suñ ko dañuy sonn Sénégal ñun dañoo ndóol nañ seet xaalis boobu soxla na pour ñu créer ay entreprise mais mais mais euh, Bassirou Ndiaye li ma dégg nga wax ko ci wàllum tension politique bi wàllum justice bi wàllum perte yi nga xamante ni moom mooy am bu ñu woloo Ousmane Sonko dafa mel ni amul benn responsabilité wala lenn loo xam ne euh, responsabilité nguur gi la non nguur daf ko war a assurer suñu sécurité liberté de mouvement d'aller et de venir force de défense yi la ñuy wax ñu ñëw ñoom ñu ngi koy jéem a def mais nit kuy manifester lan ngay def da ngay jéem a assurer sécurité mais Sénégal yi suñu demee ba tiit mënatuñu génn donc am na problème peut-être force de défense et de sécurité yi waroon nañ gën a bëri waroon nañ gën a am plus de moyens peut-être munoon nañu seet ay moyens ak les comme ni ñoom Alioune Tine di def nii la les acteurs religieux ah su suñu kilifa diine yeeg yooyu ñu waxtaan seet kii teggi pédale douce def pédale douce comme ñu wax mu teggi tànkam si accélérateur bi ñu lay jéem a yolomal tuuti ñu trouver un consensus loolu moom pour que ñu am jàmm moom ñaari ñaari ñaari nit lay du ñaari lay doon mais xam nga euh, Amadou Bachir euh, Ndiaye euh, yow yaay njiitul mouvement politique bi di bokk defar Sénégal yaa yaa nekk président coalition juste mais aussi euh, li ñu nemmeeku ci Sénégal mooy wàllum justice euh, ñi ànd ak Ousmane Sonko ci opposition bi am na si ñoo xam ne dañuy wax wala ñu def loo xam ne peut-être suñu loi réew euh, mën na leen see teg ay daan mais acte yooyu ñoo ñu def ba yoon dal seen kaw dañuy gis ne yu ni toll wala yu ni ëpp ñi farak nguur gi dañ koy def mais parfois yoon du leen woolu loolu aussi dafa dafa tey xel. mais su ñun nañ porter plainte. am nañ droit bi ay citoyen leen ko suñ gisee ne ne lii war nañ ko def defuñu ko nañ porter plainte ba pare porter presse. su boobaa dina porter plainte mais parfois du mujj fenn. ah kon dossier ba dafa dafa dafa kiiwul parce que foog naa ne ne ñi nekk justice di ay ay ay kenn gënu leen bëgg seen bopp. waaw non bëgg nañ woy ju rafet. si xam nga gii euh, Guy Marius agressé woon nañ ko fi euh, Malicounda porté woon na plainte Ousmane Sonko porte na yoon ay plainte tey euh, même député yi dañuy jël ay mbir pour ñu waxtaan si mais acte yooyu parfois du mos euh, du mos a aboutir. waaw mais li nekk sa biir dossier ba la rek xam nga problème lépp toujours soo porté plainte dañuy def enquête yow Abdou Khadre soo mënoon dem liir enquête bi xool conclusion yi ndax. jar na ko wala jaru ko wala ñu jël avocat mu toppal leen loolu su ne jar na ko wala jaru ko su boobaa dinañ gën a xam mais fi nekk dañuy wax rek dañuy wax rek Malicounda xaw ma lu tax dossier peplaintu gi Guy Marius Sagna continué wul je ne sais pas lan moo nekk si dossier ba ndax dafa doxoon provocation wala dañ ko provoqué wala di xaw xaw ma daal mënu ma la wax mais li nekk si biir dossier bi mais suñ nit ki plainte dañ la war a firndeel ne yow am nga dëgg wala amuloo dëgg peut-être toll nañ fu nga xam ne léegi ñun dañuy bëgg lépp ñu leeralal ñu ko mais am na yoo xam ne nag ñun mënuñu ci accéder tant que jaaruñu ci par les mooy am sa avocat wala ñëw def conférence de presse expliquer ñu lu tax loolu moom mënu ma ci wax la léegi euh, Bassirou Ndiaye yow hmm. sànq yaa ngi wax ci dialogue politique bi hmm. mais amnistie bi yow Euh, est-ce que d'accord nga ci ñu amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall wala d'accord nga ñu am ne comme ni nga ko waxee sànq ay fee la ñu amnistie ndax d'accord nga ci projet boobu président Macky Sall teg pour euh, projet pour amnistie ndax d'accord nga ci. amnistie ñaari nit. de nit ñi nekk ci prison yi def même fay ñu téye leen ba léegi dama ndax jaadu na wala jaaduwul mais su fekkee ne jàmm senegal moo gën wan nañu ne ñaar ñooñu suñ leen aministier senegal dina am jàmm peut-être jar na ko mais su man daal euh, amnistie ñaari nit daal man daal bëgguma ko ñaari nit rek ñu amnistie leen loolu moom d'accorduma ci mais nag su fekkee ne dañ ne jàmm prouvé nañu ne jàmm senegal fa lay jaar jar na ko waaye ñi nekk ci biir prison yi def même fay aussi nañ leen ci boole. mais mais bu dee mais bu dee tey euh, dañoo bëgg Karim ak Khalifa bokk ci élection rek est-ce que amutoon beneen possibilité euh, lu may amnistier leen. dégg naa ñuy wax ne ñu modifier article L vingt neuf L trente mais xam nga man son problème fan la nekk su fekkee ne bi ñu leen condamné dañ leen euh, teg ay daan ci ñu war koo fay impôt est-ce que fay nañu loolu. parce que même suñu dindee article L vingt neuf ak L trente boobu ñuy wax noonu suñ ko dindee. suñu waaw suñu def <laughs> candidature il faudra que ñu indi quitus fiscal suñ ko fayul quitus fiscal duñ ko mun a am. Hmm. impôt du leen du leen du leen bindal quitus fiscal mooy foofu la sama problème nekk dëgg naa ñu wax l n L930 mais j'ai pas compris comprendre ma trop trop il faut que spécialiste ma loolu daal. waaw mais ñoom hmm. bu ñu leen tëjee yenn daan yi euh, toppee la ci yenn infraction yoo def Euh, L29 ak L30 mooy tax doo mën a euh, bokk ci élection mais euh, tey dialogue bii ngay wax nii ñu bari ñaar ñii ngay wax ni Khalifa Sall Karim Wade ñoom bokk nañ si dialogue bi am na sax ñoo xam ne F24 ñoom dañoo jàpp ne dialogue bi dil la ay nit ñoo jóg pour dialoguer ci seen intérêt ah d' accord donc loolu moo tax ñu yuuxu Khalifa Sall xam naa rek bi ñu defee seen meeting ba ah accord waaw ah, mun na doon lool mais comme ni ma wax rek dialogue moom su la njiitu réew bi woowee yàlla moo def moo ñu jiite da ngay ñëw toog suñ defee li normal nga génn kenn du la téye ne la toogal par la force génn wax ne ne lii ñu def normal la ne tant que tooguloo ba xam lañ fay wax la nga ci wax rek da nga koy njort rek surtout que ñu ngi amul terme de référence da koy njort rek njort nag moom kenn mënu koo tere nit mais dem toog fekkee xam ne dëgg-dëgg lii lañ fay def nga génn wax ne ne d' accord loo ci wala d' nga ci loolu daal mooy gën te loolu moo gën a demal ci kanam parce que lépp lu ñu nekk di wax dañuy tardeel sénégalais dañuy indi jeex yi jaaxal seen Sénégal seen bopp nañ dem toog suñ waxee ne lii lañ fay waxee ku d'accord nga jóg génn woo presse bi woo Sénégal yi wax nañ ne man d'accord ma ku d'accord nga jóg génn nga toog nga toog déglu wax lim ci xalaat. d'accord mais yéen euh, yéen coalition juste. Mhm. mbirum troisième mandat. ndax yéen ànd ngeen ci walla ànd leen ci. mais waxoon naa la ne Abdoul Khadre. troisième mandat duñ ci wax lu dul mois d'août bi ma ñëwee fi février. la <laughs> nga xaaral nga xaaral nga expliqué Abdoul Khadre xam nga lenn aussi mun nga ko. ki tax ñuy wax affaire troisième mandat muy président Macky Sall moom nee na du ci wax man nag yaakaar naa ne moom de ak respect bi ma ko jox yëpp ëpp ma fayda di wax lu mu bëggul wax man. Mhm. ma koy nettil géntam. munu ko du ko def. Mhm. du ci wax. tant que mois d'août jotul mois d'août jotee nag su fekkee ne wax na day nekk candidat suba ñun dinañ ci wax. d'accord xam naa ko février waaw léegi Bassirou Ndiaye pour mu euh, pour mu gën a clair. léegi troisième candidature tudduma si euh, président Macky Sall. troisième mandat tudduma si président Macky Sall. léegi nañ si wax comme si que troisième candidature Macky Sall yoonam yoonam nekku si. est-ce que yéen tey réew ni muy doxee ak démocratie ak pouvoir ndax jàppoo ne ñaari mandat rek. doy na ci ku nekk président. waaw loolu moo tax 2016 bi ñu defee référendum bi temps yooyu ñu ngi woon Macky 2012 dañ ci d'accord woon article 27 bi bi ñu ko modifié dañ ci d'accord di ko applaudir ba tey jii dañ koy applaudir mooy de cinq ans le de cinq ans nul ne peut de deux mandats loolu dañ ci dañ koy applaudir ba léegi mais bi ñu demee ba ci biir boroom xam-xam yeeg yëpp ku nekk ñu wax non bi dañ koy appliquer bi duñ ko appliquer conseil constitutionnel bi président Macky Sall ne deux mille douze bi ñu ko falee cinq ans lay def bi ñëwee ba deux mille seize mu ne mu ne dafa bëgg a wàññi mandat am def ko cinq ans conseil constitutionnel ne ko mandat bi sept ans la bokkul ci li ngay wax mënuloo ko def parce que sept sept ans nga juré daf ko appliqué bi mu lay wadd président maam lay wadd waxee ne day nekk candidat conseil constitutionnel ne ñuy wax ne du nekk du lii du dafay nekk candidat mënuñ ko teggi président Macky Sall dafa dem defi campagne démarche su président Macky Sall mooy moom lu mu wax wax wax wax wax wax wax d'accordul d'accord su état bi su institution yi waxee su li ñu tëral li ñu lëkkale waxee même su si d'accordul day appliquer loolu dem mais lu tax ñun ñu bëgg mu gën ñoo am fulla ak la di ci wax loo xam ne ne ne ne kii wala boog ñu teggi constitution bi teg fële mais loolu nañ nekk dañ jël nguurum ki ba pare waaw non mais boo xamee boo gisee nit ñi di si wax dafa am lu nit ñu di si wax dafa am benn contexte bu présenté woon 2011 am ñu bare bëri faatu ci lu jëm ci troisième candidature Ablaye Wade. xañ na ñi si xañ na ñi si wax loolu la ñuy bañ. ñuy naqar lu ñu fi faatu woon parce que ñu nga woon foofu. Hmm. jour ba kii ba di jaaree si euh, waa ji dëkk Mbour. kii euh, euh, kii Diop waaw bi muy jaar foofu ñu nga ñu nga woon foofu dañu dem rek. après yàlla Mamadou Diop yàlla na ko yàlla xare àjjana ak jëfa dee ñëpp te ñooñu seen seen njaboot a ñàkk. waaw mais loolu tax ñu si wax naan. waaw moo tax ma ne la. parce que loolu dañ ko dañ ko créer dañ ko wax mais ñun ñëpp bi ñu paree laa la wax conseil constitutionnel wax ñëpp topp toog foofu di wax non non amul droit amul droit amul droit président Macky Sall dafa génn dem am fulla ak faydaam dem defi campagne ma ne bëgg nekk président duñ def loolu xam ne ne conseil constitutionnel moo lii 2016 bi mu d'accord la constitution bi li mu bëggoon proposer changement yi daf ko changé li ñu ko jox lépp li ko séenéeri jox li mu ci bëggoon changé daf ko changé parce que ñun moom la ñu jiital mais ñun mënuñoo am fulla ak fayda di def ne moom xeex pour mun a jëlee ki fi nekk su fekkee moom lañ bëgg pour nekk président suñ nekkee président ñu proposer ay réformes mais nekk fii suba ngoon toog ci place Lobisque baare appareil production bi yëpp du mun na ko def mun na ko def su conseil constitutionnel décidé ne duñ ci mën dara. d'accord mais mais mais yow euh, yow yaa ngi woon Macky 2012. Euh, mais ba léegi dafa mel ni sa xel maa ngi ci président Macky Sall bu ma dégloo sa discours bi li nga fi waxagoon dafa mel ni. Euh, yaa ngi mel ni ku bokk ku bokk biir benn bokk yaakaar. non bokkuma benn bokk yaakaar xam nga ndax bokkuma benn bokk yaakaar lii ma lay wax nii nekkoon benn bokk yaakaar du ko mun a wax te man fu ma nekk faaw mënumaa wax li ma xalaat ndax li may xalaat dama koy xalaat pour sama njaboot dama koy xalaat pour xale yi may gis su ma tourné gis sama njaboot ma ne ah ñii de war naa wax seen papa war naa mun a wax loolu la donc mënumaa bokk benn bokkuma benn bokk yaakaar président Macky Sall nag ah liggéey na gis nañ ko liggéey nañ ak moom. nekkoon nañ si Macky 2012 donc dinañ ciy jox référence parce que fi mu nekk nii moom rek lañ mën a jox référence parce que moom mooy actualité moom ak Sonko rek lañ mën a wax mënuñoo wax leneen mënatuñu wax Ablaye Wade mënatuñu wax Abdou Diouf mënatuñu wax Senghor Macky Sall Sonko rek lañ mën a wax donc il faudra que ñuy wax ak ñoom sama xel a ngi ci moom c'est normal parce que man ay citoyen la moom mooy jiitu réew mi c'est normal. lu tax euh, bokkoon ci Macky 2012 bokk si ñu fal président Sall. lu tax nga génn ci. mooy li ma wax rek li may wax nii <laughs> munu ma koo wax foofu. xanaa kon gisoo ni mu yore réew mi baax na. ah non du question li mu yore baax na. problème bi mooy li ma waxoon la dernière fois te ñun ñu d' accord mooy def na infrastructure yu dul jeex du xaaj mais nit ki soo ñëwee tey ji yow euh, Abdoul Khadr nga nekk journaliste am say technicien jàngaluñ leen dara ñu jël ay nit rek teg tabaxal leen bati bâtiment jox leen ay matériel yëpp. ba pare bu leen jàngal tardement la dañ leen war a jàngal ba pare eh, def door def eh, door leen jox matériel loolu la moom dafa def infrastructure yi ba pare ñu war a xalaat nag Sénégal yi léegi nan leen jox mais soo demee ci àll bi ñun ñu ngi proposé quatre cent communes rurales yi gën a nekk euh, dans la ruralité ñu jox leen huit ku nekk cinq millions créer leen coopérative créer leen pôle industriel créer euh, créer leen euh, élevage ñu seet nan la ñuy liggéeyee pour mun a suqali seen i commune mm-hmm. ah ñu ngi laajte loolu ñu ñu ngi laajte loolu ñu wax ne ne ñu def programme mille milliards pour ça huit cent cinquante milliards commune bu nekk ñu jox la xaalis bu doy bu takku pour que nit ñi mën a liggéey xale yi nekk marché HLM di taxawaalu foofu ñu bàyyi leen seen dëkk yi ñuy liggéey xale yi jóge euh, Toubacouta di dox ñuy jóge Nioro Alassane di dox pour dem jàngi ñu wutal leen kaar ñi nga xam ne ne duñ lekk benn yoon la ñuy lekk par jour di jàngi école di defal leen restaurant scolaire lool mooy suñ programme kon xam nga ne dëkk bi doxul ah mais maa ngi koy wax suba ba léegi <coughs> sànq ba léegi maa ngi koy wax. maa ngi ne dëkk bi doxul am na problème yu dul jeex du xaaj donc ñun buñ ñu sonal par rapport ak du def premier mandat du def quatrième mandat du def cinquième mandat nañu seet nit ñi nañ dem si nit ñi ñu xam ni ñu bëgg li leen gën a ñor. li tax ñuy gën a mën a génn si seen ndóol xale yi nekk fii di wut liggéey ñu war jox leen liggéey maa ngi lay wax ne xëyu ndaw yi am na résultat certes mais doyul soixante mille emplois loolu doyul maa ngi wax loolu loolu lépp maa ngi la koy wax waaw d'accord mais euh, li ñu gis kay mooy mm-hmm. euh, politique social bi mm-hmm. président Macky Sall ma ngi wax euh, politique social mais gis nañ ne tey la ñu baree bari sonn bërki dem rek am na benn kuréelu commerçant bu ñu def conférence de presse mm-hmm. ñoom ne nañu soo moytuwulee sax njëg yi mën na fee gën a mën na fee gën a yokkaat est-ce que priorité yi du woon fexe ba askan wi génn ci ndóol gi bu ñu bëggee faju faju ci lu yomb mais gis nañu faju gi aussi dafa nekk loo xam ne lu cher la loolu moo tax ñun ñu ne si suñu programme suñu yàlla dimbalee conseil économique social quoi que ka fa nekk nit ku ñu naw la dafa nekk léegi Abdoulaye Daouda Diallo nit ku ñu naw la koy ñaanal mu réussir mission mais ñun suñu yàlla dimbale woon ñu ne ñu ñu yore réew mi dañ koy dissoudre dañuy dissoudre au conseil collectivité territorial dix-neuf ministères rek la ñuy def xaalis boobu ñuy ñuy ñuy économiser économiser fële agence yu bëri ñu ñu arrêté la ñu def ko dans le social dans la santé dans l' éducation ba pare nag def ko dans les communes rurales. suñ ko defee su boobaa sur deux ans trois ans dinañ mun a yëngal affaire yi yëngal yëkkati tuuti nit ñi xaw a gis seen bopp ci ci biir. d'accord waaw waaw mais xam nga tey euh, euh, Amadou Bachir euh, Ndiaye yow yaa jiite mouvement bokk defar Sénégal coalition juste yaa ko jiite sànq yaa ngi wax ne xale yu bëri ñu wala dund gi dund gi ñëwul tey. mooy président Macky Sall deful résultat ci li nga xamante ni tey mooy mooy euh, réew mi ndax résultat réew mi ñu si ëpp ay ndaw lañ presque am na ñuy wax soixante dix pour cent mais bu dee politique bi nga waroon def ci ndaw ñi ba ndaw ñi liggéey gis nañ ne demeewul noonu gis nañ ne tey wàllum faju dafa cher mbay mi baykat yi ñoo ngi jàmbat nappkat yi ñoo ngi jàmbat sàmmkat yi ñoo ngi jàmbat secteur privé bi ñoo ngi jàmbat informel bi ñoo ngi jàmbat kon ban résultat lañ mën a jàpp. waaw xam nga sooy wax résultat da ngay comparer ak li amoon ak li am léegi soo xoolee euh, indicateurs yi ñuy jël mu toujours di natte am na changement yokk na tuuti quand même kooku mënuñu ko tere. deux mille déglu ma wax la deux mille douze. waaw déglu ma wax déglu deux de sécurité familiale. mais budget bi dafa gën a yokk. waaw dëgg 2012 budget bu Sénégal nekkutoon 6 000 milliards et que moo tax ma ne la am na yokkute tuuti. c'est normal mu yokk voilà maintenant su fekkoon ne man la. du ma ko defee nii mu ko defee. xam nga li ma lay expliquer sànq ne la infrastructure man su ma gisee maam Ablaye Wade ñu tudd jox ko tuddee ko stade bi. damay kontaan. parce que stade bu rëy la mais nga def ko jam ñaaju nit ñi suñu waree dem stade bi stade bi deux fois trois fois quatre fois cinq fois par an boobu cent milliards yooyu mun nañ ko jox xale yi ñu créer leen entreprise tey jii nii xale boo jox cinq millions encadré ko ne ko du la jox xaalis bi nga téye mais dama lay jëndal matériel di la suivre jël Abdou Khadre dans la communication mu lay suivre chaque mois mu def rapport ñu xool muy jubanti jubanti mais dans deux ans mu dem comprendre nga loolu moo tax ma d'accord ma ak ma ne la am na ay résultat kooku ñu ko nier mais niñ ko defee noonu laa d'accordul kooku kay moo demal gis nga bourse de sécurité familiale bu ñu jox vingt cinq mille yi ñu jox nit ñi tous les trois mois léegi def na trente cinq mille xaw mais man suñ ñun suñ coalition dañ ne par weer mais kuñ ko jox dinañ la jàngal nan ngay nappee dinañ la ko jox def pour un an mais dinañ la jàngal nan ngay nappee ci commune rural boobu ñuy wax dinañ jël xaalis teg dinañ jël un milliard teg ñi ñu jox bourse de sécurité familiale yëpp dinañ leen jàngal nu ñuy nappe dinañ leen jox les moyens dinañ leen encadrer dans deux ans trois ans quatre ans su boobaa dinañ dem sax budget dix mille milliards parce que su boobaa nit ñi suñu commencé produire dinañ fay impôt su suñu leen di suivre jàngal leen ñu commencé am recherche dinañ leen fay impôt mais euh, tabaski gaa ngi ñëw su fekkoon commune bu nekk amoon na benn ferme ferme bu nekk foofu def élevage mais dans un an ñëpp dinañ am xar loolu aussi pour pour pour catholique yi mbaam yi suñ ko suñ suñ ko defee commune bu nekk catholique ñu ñu ñu ñu yaral leen ay mbaam ku nekk fa ngay jënde commune bi du am ay ay ay tax waaw jërëjëf euh, Bachir Ndiaye yow yaay président mouvement politique bokk defar Sénégal président coalition juste mm-hmm. euh, ndax yéen présidentielle 2024 incha allah da ngeen wut candidat waaw comme ni ñu ko waxee woon la dernière fois euh, deux mille août la ñuy choisir ki ñuy jàppale am nga toujours nag ñun dañu xaw a dëgër bopp li ñu wax rek la ñu la ñuy jéem a def mais. kon yéen amu leen du nekk candidat. mën nañu nekk candidat. mais wala ci biir coalition bi. ci biir coalition bi mën nañu am candidat comme mën nañu am beneen candidat mais li may wax su dee choisir la ñuy def dañuy choisir ki fi def dara ki nga xam ne gis nañ ne ne mën na am dara ak par rapport ak ki nga xam ne ne su waxee nit ñu bëri interprète ko peut-être du loolu la bëgg moom mais ñëw toj. appareil de production kii jàppale appareil de production parce que ñun suñu problème yëpp mooy appareil de production ñuy liggéey nañu liggéey pour que ñu comprendre ma li nga wax li ma wax mooy su may par exemple kii indi ay solution nit ñi pour ñu liggéey kii indi jàppale secteur privé bi jox leen les moyens jël étranger mais ki nekkagul président mënagul lii ngay wax ni xanaa kon président bi nga bëgg a soutenir non dama lay expliquer président bi ci la bokk président bi moom moo def infrastructure yi mais yow tey yi Abdou Khadre soo boo xam ne day appuyer secteur privé bi fépp bu français yi am wala chinois yi wala japonais yi wala euh, américains yi nga ne leen cinquante pour cent yi na nga ko jox sénégalais yi da nga leen jàngal métier bi mu def transfert de technologie su boobaa Abdou Khadre dinaa la jàppale parce que dinaa xam ne ne yow yaay gën a def mieux que président bi comprendre tey tey bu Sonko nekkoon candidat ndax pare nga pour bokk ci coalition. non non non bokk coalition Sonko. non non non ñu ngi woote gatsa gatsa baal ma si terme bi ko duma nekk sa non man je suis que damay bëgg suba samay doom roy ci lu baax que moom nii nii nii ko nit ñi di li muy wax. parce que tout le temps mu ne du moom loolu la wax loolu la bëgg mais nit ñi di interpréter xale yi di loolu di yàq di yàq di yàq yàq. am ah, na mais da nga wax ne Sonko nitu la. non mënuma wax nitu fitna la xam nga man du ma nit. ci ay wax ko ne lii la dafa baax ak dafa bon ak dafa kii man damay wax par rapport ak Sénégal du mu ñëw mukk di. loolu perception bi Sénégal yi am. perception bi Sénégal yi am laay wax man dama ne nit koo xam ne su waxee ñoom ñu gisee ko nii waaw mais respecté naa doomu adama ba nga xam ne ne ne man lu ma bëggul ñu wax ma ko duma ko wax. keneen bu dee perception kay mooy Sénégal yi ñu bari gis nañ ne saa soo ko génnee. ñu bari topp ko waaw dañ koy topp te yàlla moo ko def te parce que dañuy wax dañu gis ne ne ne ñoom pour ñoom. dañ koy fitnaal moo tax ñu koy topp xam nga loolu dafa dafa dafa xaw a subtil dafa xaw a sew donc nit ñi koy topp topp ñu ko ndax programme bu mu leen defal dañ koy topp parce que dañu yaakaar ne dañu leen def dañ koy fitnaal. kon yow entre Macky Sonko boo doon tànn koy tànn. sama bopp. bu ñu ñoom ñaar ñëpp bëgguma ñu nekk candidat bokk pour mu leer man su préféré man ma nekk candidat que ñoom ñaar di nekk candidat wala suñu candidat justice solidarité euh, entrepreneuriat nekk candidat gagné. mais est-ce que yow am nga programme. ah waaw programme maa ngi lay wax léegi nii quatre cent euh, mille milliards yi bu ko def dans les quatre cent. mais def sa sa sa sa nga fi wax de. ah parce que waxuñu dugguñu si santé bi joxuñu armée bi parce que armée bi ñun dañu ne dix huit ans nañ delloo ci waat service militaire obligatoire parce que éducation civique bi dina gën a dina gën a kii gaz beeg pétrole bi ñu am dëkk yi ñu entouré sécurité euh, insécurité bi am yëpp il faudra ñu indi euh, armée service militaire obligatoire santé bi dañ wax ne ne ku nekk troisième âge nañ la jël quatre vingt pour cent dañ jox gratuité euh, say santé. est-ce que ah, waaw waaw mais dañuy day day c'est plus que faisable xaalis baa ngi ñëw gaz beeg pétrole baa ngi fi ministère yu dul jeex du xaaj yi ñu am fii mais xoolal euh, ministère yi ñu am yëpp. suñ leen wàññee agence yi suñ leen wàññee ñu ngi budget six mille milliards mais nee naa la ñu mun nañ dem ba mille milliards budget dix fii ak trois ans quatre ans donc c'est faisable am nañu pàcc yu bari yoo xam ne ne liggéey nañ ci ñu ngi ciy wax. d'accord waaw jërëjëf euh, Amadou Bachir Ndiaye ñu lay sant euh, di la gërëm. jërëjëf Abdou Khadre kontaan naa lool euh, di jéggalu su fekkee ne <laughs> tooñ mm-hmm. naa kenn di ñaan yàlla yokk yokk ba ñu yëg ko. jërëjëf Bassirou Ndiaye mbokk yi moo jiite mouvement politique ànd bokk defar Sénégal moo jiite coalition juste moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM ñu leen di sant di leen di gërëm jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm. jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm ngeen jëf euh, jàmm ak jàmm jërë ngeen jëf euh, jàmm ak jàmm